من غاب ساقبا إلا سوى الهداية تلو بما ماء وبيسافي إلى دار البابا قلوب من لم يؤيبني على وجاد ولا يلاقون ما دم ولا الباب ينقادني قل رحم الكرام مولا ولا قراق بما لقد أتاب ينقاد لي قل ما رام كرام مولا ولا قراق بما لقد أتاب كان من ملك ليس كفاك ربك يا كل كفاك فتان كفاك من كمين من كان من ملك كفاك ربك كافك في كابن فيه من كوكب كان يويا في كوكب الفلك سكرا كرل ككرل كرل كفي كبد ككم شكيكتكم كالجنوك الكنوك سيق الذين تركوا العبادة مينار من أتسع أتسع جرجف من لم يطيع أبدا طيب من وملك في أبد ما لا يرى ملك بناؤهم يلو وليس ينزفل أما مباني زوني فمزفل بالليل آمنوا وأسموا معي وتسنوا لوجه باخر غما هو الإله وهو رمان وهو رحيم وله الأزمان من له أنفع وشكور ذا خدمة للمصطفى بن شكور فعارة جملة من المبارك وهو الكريم وهو الخبير إلا لا من لك كريم فات للمصطفى وجهته ما خسر فات لخيرنا إبليس وهو سرفات حرمت بات الأرض بأق الفرق ولإلهي كذا سيدك ملك ربيق مالك كليتي علي لو كامني ونيتي ردت بلاي وبرسولي من قال فاقا ولي تزولي برأني الإله من سك ومن كل نباخ وأزادت دم براني من أبي نفسي من صلى عليه بسلام منبي هو الذي لم أرى سوانا زين القلب جروا لك جروا لك جروا لك تسليم باغ قال لي ثوابا على الذي أروسني ثوابا فيا زاني بزر فيا زاني بزر فيا زاني بزر فيا فيا زاني بزر فيا زاني بزر فيا زاني بزر César. bës bu dellu si monnaie. bës bu dellu si. Alina bës bu dellu si monnaie. bës bu dellu si. Alina Badara bës bu dellu si monnaie. bës bu dellu si monnaie. Bamba Kita betul tertembak Bamba Kita nampak Bamba Kenapa kita tampar Bamba Mana cun luan Bamba dan ah. tiada kau bamba Kanan tinggi Tinggi Rekit Bamba am. moo tax mu dëgg ku dëgg fa yàlla. tey bi ñu demee booy dolli ci ñoom Cheikh njaay rak magam moo doon ànd ak Tafa euh, Aliou Ndiaye Cheikh Ndiaye Tafa Ndiaye. fi nekk ñëpp su ma limee juum. yàq ñu ci dara. maanaam buñ fi ñëwoon moom. man nu ñu xoole wala nu muy dundoon ñun. Aliou rus na yónni sax waxuma la man du fi yónni benn booy. du fi yónni kenn barke borom Touba. boo ñu fekkee ñuy waxtaan te bu ko neexoon am na lu mu ñoddee waxuma la Waly Seck am na lu mu ñoddee ci Thione Seck waaw am na lu mu ñoddee ci Thione mais boo ñu fekkee moom loo xam ne kii mooy rax waali wala kii mooy raqu diw dañu ñun noonu la ñuy ànd ak nit parce que borom daarool mukti man ànd naa ak Alioune toog ci oto doomu kilifa woo ko ne ko damaa bëgg ñu ànd yàlla rek tax doomu kilifa bu mag man mu wóor ma ne man su ma daawoon position damay mel ni lëg dama ko fi ba parce que sama intérêt laa ji mi ngi xool ñi muy àndal te loolu moo gën a kontaan ni ñuy ànd boo dee gel sax avant mu am jabar soo ko woowee a bi ñooy jël am nañ ci kër borom dalal la barke Serigne Touba milliardaire ma sol place su doon keneen la daana amee sa place bi li jël ci wul lan samay nomba pour wax leen rek fédélis kóllëre daaw ba ren bu baaxee rek kóllëre buñ jeex lu ñuy sàmm la ginnaaw lay féede mais dafa jiitu ci moom barke Serigne Bamba ñu la Baay Faal lañ de man magam bu may wax amee way way amee Baay Faal la mosuma wax sama Samara te bu tax raxam laa àndal mën na ma wax Aimé Samara mais Aimé Sama Baye Fall bi la may way yu neex yoo xam ne njaajoon njaay lañ koy way la may waal di way te xaw ma lu ma ko jox da nga xam ne lépp Alioune Seck la na Cheikh Al Khadim li muy ci keppaar gi nii yéene nañu lu ne te projet yi mu def démb laa mujjee signé ci kanamu ba booy gars yi ñun ñu ngi ci kaw tête de liste xeebuñu quoi ñun am nañ démb de mais xeebuñu bi mu dugal sama këyit man fédération ko seedeel nag yéen ñëpp ñu fiy toog àndu góor ak nawle lay ànd ak ñun xeebul suñu dara xam li am ci yeneen yi kër yi fay am ñi seen baay am daraja wala ñu am tur ñu ñuy àndee gaay àndu góor yàlla la ñuy ànd barke sëñ Bamba fu mu dem yóbbuñu ci fulaak ci fayda jox ñu suñu cër xeebu fi kenn booy bi fi gën ndaw bu wéetee moom da ngay fan moom la gën bëgg xamul kii moo kii kii moo ko la am mariage bi ñuy bind liste bi dix premiers yi barke borom daaru ñu xeebu ñuy ñoo ne ci kanam wala di sono ah, am na ñoo xam dañuy ànd ak yow mais bu dem fen jotee nañ leen bu de ñun dañuy wax de waaw ah, man dama dëkk ci town bi xam ni mu demee dox saa dox waati fees xam ni mu demee sama boobu dafa fees dell boo ñu fekkee ñuy fo nag dafay far am nu mu deme waaw ah, bu dee juin jotee ñun fii amul ànd jëwuñu fennuñ ambiance lañ xam ku fi ñëw def fi ñaari fan sax doo bëgg a demati ndax li nga fiy fekk mais lépp moom la buñ fi yaatoo ba fi sang di fi def leneen ak leneen Alioune Seck Cheikh Alhaaji di leen seedeel ni ñun ñi maanaam bu ñu nee baax na balaa ko kenn la wax ñun ñi muy nekkal ñoo leen ko njëkk a seedeel ci fulla ci fayda ci jox ak ngor day ànd ak yéene di faj kenn ku ci ne loo xam ne mi koy faj teg sa morom du ko yëg parce que Cheikh Al Khadim nag su ma waxee mooy booy ma nekk lépp wax nañ am na ñoo moom am nañu dunguru de dañoo ñëw ak suñuy valeur parce que Seydina Ousmane andu dunguru anduñu ko ak Aline Seck xom dama bëgg mu leer ñi fi ñëw ñëpp amul ku muy dung ku koy dunguru parce que Cheikh Ahmadou Bamba dañuy dem Gambie oto bi Cheikh Ndiaye ñi fi ne ñooy yéeg ñi muy àndal bi ñuy mujjee classé ñuy dem suuf ñiy dem ñi fi ne ñi fi nekkal yoonam newul ci leneen maanaam ànduñu ci dunguru ànduñu ci seytaane ànduñu man la raq Wally Seck parce que Seydina Ousmane man fu Wally tëggu du ma fay waaye damay tiim di ma waay ay waay yu neex boole ci bi may takk jabar cinq cent mille la ma may tam si tabaski bii passé fii la taxaw am nga xar taal sa Insta. Alioune amul xool toogam ñun kenn naa la jot li ma kaas barke alxuraan dañuy wax de man gis naa doomu borom tur yi ni gaa yi di ànd ñoom ci taw féex mais barke Serigne Touba Mbacke kii ma gis ñun fulla la ànd ak ñun fayda yabu fi kenn ànd nawle ak moromam booy bi fi gën a ndaw papi la wala kara xaw ma barke alxuraan duñ la laxee pateek def ñu ci ñam ñeenti weer doo ko gëm keroog mariage am liste bi da leen a fonk ci kaw lañ ne maanaam waaye kii maanaam bu ñuy wax sax xool yi day yëngu waaye daal bàyyi faat ñun daal maa ngi leen di seedeel ni ku baax lañ jàpp góor lañ jàpp ñun góor la ñuy àndal waaw góor lañ am ñun seen naan seen doy nañu quoi lu am leneen nag jël mais Aline ñun doy nañu ci lépp te doyloo nañu koy ñaanal gudd fan ak te bu amee ñëpp am sax jur suweem loolu la dama bëgg a dagg action MMA damay dem alit damay takku jóg MMA li may lijjanti pour yéen la boo demee ku koy jëriñoo lan mooy seen problème dal foofu lay nekk ñun des fois ma giriyee ko na ko ni ko bi suba mu ne ma aboo te man li ma wax maa ko gën a xam ndax dañuy teg projet yi maa ngi toog maa leen di seedal ku baax la barke Cheikh Al Khadim di jéggalu nag waaw bu ñu waxee rek xol la ñuy waxee waaw di jéggalu war nag barke sëñ Touba yaram dëgg la kër gi bu ko àll nekkul kenn fi ñëw. noonu la toll mel bu tukkee mhm. ñëw. kër gi fees. lii xew ci kër gi nii yàgg na fi mais kii moo ko continué bàyyi moo ko commencé. moom li mu doon ci coon kenn doon ko. Mhm. yaram mu neenu coon doonu ci coon. ñeewee lañ ko doon ñe leneen moom mbooloom la doon ci coon. ak yaatu. Mhm. Aliou dafa yaatu il Papa am respect ci la xam sa mel parce que ak fekk teebul kenn. Hmm. ñi muy àndal ñëpp ah, moom benn lañu. dëgg la amul frontière ci ñi muy àndal. Hmm. lépp ñoo bokk lépp moom noonu la ko sonal nag loolu nag yàlla ko si yàlla jàppale. amiin parce que yàlla kenn mënu koo nax. Hmm. amul nëbbu ay nit booy ànd ak ñoom da ngay soye seer bi. nga xam te li ngay ànd ak yow. ku ne xam ne fu mu la yem nga xam ku nekk ñu koy yem. loolu mooy ànd adduna yàggul neexul.